Votre bulletin d'information communale, BIC. assalamu euh, alaikum Wa Njoobeen Wa alaikum assalamu alaikum Wa alaikum assalamu alaikum Wa ma imam de nouveau délégué de quartier yi d'abord les deux chefs de village El arrive à Diop ak son papa Seni Dia Seyni Mbaye Dia ñu di

pour man nag première promotion la te suñu yéene mooy defaat deuxième troisième énième promotion Inch'Allah. allah ba pour xale yëmbal bëgg daan sa doole nga am formation am ku la nga koy liggéeyal wala nga am sa boulangerie bop dina si ñëwaat. di nuyu sunu délégation ñëpp ñi fi téw di nuyu sunu yaay yi fi teew également di nuyu délégation bi ñoom Djibril Ndiaw ñoom Omar Sow ñoom monsieur le maire Moussa Niang bien sûr ñoom Magnon Dia di nuyu bépp responsable politique bi fi toog surtout sunu maman sunu maire Awa Diallo di nuyu tam sunu grande sœur Awa Diène ku ma fàttali nga jégal ma Matar mu ngi fi Matar Thioune my dear brother ak jeunes yi fi nekk yëpp euh, du politicien mais koy nuyu. képp ku fi teew daal nuyu naa la. di nuyu nag bu baax sunu grand frère sunu xarit nekk doomu yëmbal comme ñun nga xam ne sunu yàlla mayee. nous mën a am programmes ñu def ci programme bu ci formation yu mel nii jox ndaw ñi opportunité économique opportunité économique di nuyu sunu grand Babacar aussi di ne kooku du kenn ku Abdoulaye Diop nan ko